njàkkere jaayum keur wala terrain ci mim réew jeex fi wala location mo xam appartement wala studio ak social shopping immobilier dañu lay jaayal sa produit cenn mu gëna tubakal tubaakal mettre en rapport ak sunu clientèle nga xamante dañu soxla kër wala ñu soxla terrain wala bëgg louer appartement wala studio bu ko défé ñu ñëw sa biir kër dal di lay fotol sa kër wala sa terrain wala sa appartement wala sa studio si ay photo yu euh, leer nañ ak ay vidéo yu doy waar dal di koy poster sur suñu page bi di social shopping immobilier bu ko défé yeen ngeen wote ci 77 417 77 40 wala 33 835 08 67 ak social shopping immobilier jaay kër neex na ci réew mi Moustapha mbay ñu gën koo xam si Mbaye Sapar Sapar wuy ji na sunu borom tey si 13h si yoonu Daaru Jolof la Mbaye Sapar Sapar ñàkk contrôle otoom daal di dal si ay élèves yu nekkoon si yoonu école ba ñaar si xale yooyu le ñàkk si seen bakken ñi si des am ay gaañu gaañu yu metti ba ñu yóbbu leen hôpital Matlaboul Fawzayni Mbaye Sapar Sapar si ñu amee woon gaañu gaañu yu la bokkoon si boobu le la sunu borom jëlee bakkenam muy xibaar bu trist bu dal. tey ci sénégalais yi après décès Joseph Koto nekkoon sélectionneur équipe olympique et locale bu Sénégal Joseph Koto est décédé à l'âge de 61 ans di jaalewaale sunu mbokk artiste yi am perte bu mag ñoom tam miriam Dior nekkoon artiste bu mag ñu gën koo xamee ci série Virginie STV moo ngi jaale famille way dellu yi di ñaan lu mel mu gëj fii social shopping la télé de l'avenir. photo photo le waye photo bu leer motax ñuy wax ak sen label de shooting bi social shopping shooting mo leen di gungé ci ñaar. yëf waaw ñaari yëf nee ma benn seeni ay cérémonie moo xam baptême anniversaire mariage dañ leen di defaral ay photo yu ànd ak qualité yu doy waar yemul foofu dañ leen di defar ay vidéo yu am cas ànd ak catu cas bu ko defee nga dégg daali ci loo mënti def ndax xam na nu yéen ñii gañ ngeen bëgg te ñun ñuy waa social shopping shooting dañ leen di defaral li gën neexul romb na neex beneen bi gën a neex nag mooy yow mi nga xamante ni top model nga nga war a wone sa ay produit dañu lay defaral ay fond en nature yu doy waar fond vert fond rouge lépp la nga xamante ne day taaral sa ay photo pour sa produit gën a mën a jar boo ñu woowee ñu defaral la ay photo yu am solo daal di doy waar yamul foofu la ca gën a neex mooy yow mi nga xamante ne dangaa bëgg sañse daal di bëggal sa ay soppe boo ñu boo ñu woowee ñu ñëw ba sa biir kër defaral la shooting yu coupon yu am solo ñu defaral la ay shooting way yow li tam neex na de li gëna neex tubaab fakal la ma woyé ma wax la ko ci 77 417 77 40 wala 33 835 08 67 ak social shopping way dama ne ay photo day leer ànd photo man